what up guys what up guys what's up everybody sama gars yi yow bëggee ñëpp bëggee ñëpp bëggee ñëpp before going faster allow me to reintroduce myself again I go by the name of Malachon and I'm from Senegal Rio City my town et <laughs> sama gars yi bëggee ñëpp bëggee ñëpp Moustapha Mané from Belgium I got you my bro you know what I'm saying Ibrahima Dieye Pape Ndaw Saint-Fil Miku Metal xaw ma noonu Instagram bi you know what I'm saying from Almadi I got you my bro that good from Belgium ak gaar yu ma bro Pastefien yi ak gaar yu ma bro yéen ñëpp di bëggee coono maa leen di bëggee leen bëggee xam ne aw ma seen fay quoi tu vois tey tey j'ai huit mille abonnés et je n'en demandais mille abonnés ma dem ba am huit mille genre dof bu nekk fii di caméra di wax boppam nii ngeen may abonné genre di gën a yokk sama kii yàlla bu ma leen wor quoi du ma leen mës a wor looloo waral tamit parfois bu ma bëgg bu ma laaj sama dund ma koy joxe parce que dafa àdduna bi dafa bëri ay piège quoi da nekk activiste wala man youtubeur laa sax quoi parce que je parle de tout quoi activiste bi gars yi ñoom koy collé rek parce que man Sonko laay défendre moom laay bëgg aw ma sax carte membre Pastef mais ah, euh, tax tey jii man damay bëgg Sonko gëm ko tiwaat ko jàppale gars yi tamit ma bien may fay lu baax loolu noonu quoi parce que mënu ma leen fay quoi donc bëggee naa leen bëggee naa leen di leen félicité ci 8000 abonnés yi ngeen moom may pour ma modeste personne dafa ma xam ne sax dafa tegg na wala jaar yoon minute kese lañ quoi tu vois gën leen abonné dóor kolos bi sama kanam gu ñaaw gi génn commentaire yi leen suggestion yi mu nekk ay échange di wax donc sama gars yi loolu la woon mooy de TikTok quoi TikTok mooy affaire boobu gars yi nekk di def ay ay challenge ay parodie di def affaire yooyu noonu bon c'est anti stressant quand tu suis dina am ay euh, c'est antistressant boo koy boo koy suivre Saint-Ville di ree dina la wétali parce que stress dafa bëri fii parce que Sénégal dafa métti mais dafa am lu xam ne tey dugg ci TikTok TikTok bi gis ci benn vidéo yoo xam ne gel loolu la ñu temps yi quoi sama jarbaat bu ndaw bi sax day jóge jàng arab ñëw ba fii lu dugaloon ci moom ay faatixa dugal ci moom affaire yu bëri tu bu ñëwee fi xam lu muy way yow Pape ak lii gis nga nu mu neexee ma dabalaa ko yaa moom tu vois ngeen baal ma ci terme yi quoi loolu la xale jigéen ñi def de des filles non mariées ay célibataire dañuy ñëw di ko taasu naan Omar gis nga lii ma yor ak nu mu neexee yow yaa ko moom mais sans gêne sans gêne sans gêne je me demande dans quel pays on est quoi tu vois ah léegi jigéen ñi ñoom tant que ñeneen ñi ñëw mais dañuy jëf def benn challenge mais paccal seen ween yi di juutu caméra bi ngeen baal ma si terme bi parce que tamit olof laay wax fu ma waxee ko noonu olof juutu la koy wax tu vois lambal loolu da leen lambal mes sœurs tu vois que du lu nice quoi li may doon wax rek jigéen bu njëkkoon dafa nga may ay jaasi or may ko xaalis bu bëri parce que lu tax parce que paa yu njëkk yi jigéen dafa jafewoon si ñoom mère yi ay 42 sœurs lañ daan woddoo doo gis seen awra sol solu bu descente ñu leen di mais léegi yéen taatu neen ngeen def ci mbedd yi te kenn du leen takk parce que lan perversion bi la donc sama gars yi bàyyi leen loolu quoi TikTok bi mën ngeen yem si mu neex ah, def ci loolu mooy buzz mais loolu baat buzz la loolu baaxul quoi a seet da nga am ëllëg ay doom internet bi tey ji maanaam tey ji bu njëkkoon mën nga def dara sax après bu ñu la ko doo ko xam parce bu njëkkoon y avait pas la léegi loo def tey ji mais coming generation bi da teg bëtam moo tax bu looy dem def si YouTube yi wala Instagram bi wherever foo mën a nekk rek na jéem a rafet quoi parce que sinon rek dina la jutal ay gite ngaa si xam ne di nga du café àdduna du café mais des koy laaloo des koy laaloo parce que àdduna du café mais des koy parce que bu topp sa jeunesse nii rek suñu papa ak yi meloon na ñun bees jantal genre mère yi drianke mais tey xool leen dañuy toog guddi gannaaw ñëw taaru sax àdduna noonu la xob woowu mësul na tooy donc mes de grâce bàyyi leen seen wayu vulgaire yooyu noonu quoi ay ay yoo ay ay gamoo nga ko ay Côte d'Ivoire ay affaire yoo xam ne dama la booy may booy bi jàngi arab sept day jàngi arab ñu dugg ci may xulu alahu axat wala bismillah bu ñëwee di way ay paps gis ni sa mu neexee ak moom de grâce arrêtez quand même soyez mature quoi jigéenu Sénégal yéen a lambal seen bopp li moo tax kenn butu leen takk da sama gars yi loolu cette vidéo loolu noonu TikTok waaw affaire bi chaîne bu baaxoon la peut-être stress mais vraiment léegi moom mi ngi nekk chaîne de perversité quoi tu vois benn benn benn benn loolu quoi tu vois donc sama gars naa leen trop ma la coon la léegi maa ngi ñëw ci benn vidéo